Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le Sénégal 4 TV forever. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di jaajëfal déglu naa ngeen wàllu vidéo yu bari ci euh, YouTube bi mais doomu aadama dañoo fàtte ni wërsëg yi bokkuñu nit mun na la jiitu ci dëkk. nga ñëw fa six mois rek yàlla may la lu mu mayul ko def vingt ans côté boobu bu ñuy wax dañuy juum donc beneen bi may wax mooy xale jigéen yi ñun jigéen dañuy jàppee ñenn ñi nga xam ne jànguñu surtout maa ñi jàng ñi dañuy utiliser ñi nga xam ne jànguñu ba pare dañoo am faiblesse ci ñoom dañ liñ koy jàppee sama dof bi na may jox may lekk na lay jox ngay lekk nit ki boo ko bëggul ngir yàlla jigéen ñi nit ki góor boo ko bëggul bàyyil ko la mu am Assane dëgg la def na erreur waruloon a rey rey moom kenn yelloolu ko dul yàlla mi ñu sàkk foofu juum na mais nit am na fooy toll amoo conseil amoo ku kulo jàppale tuuti rek da ngay def erreur te parent xale bu jigéen bi ak jëkkër ji tamit jëkkër ji maa ngi dégg mu naan preuve ban preuve Europe bi lañ ko xam preuve Europe bi lañ ko xam te xaalis boo xam ne danga koy envoyé Maroc am na envoyé mooy commerçant yi nekk. ca marché ba ngay jox ñu transféral la ko dëgg la nag ku nekk yaa xam mais bu ma déggee nit ñi ñi nekk Maroc di mbele mbele naan Maroc kenn mënu fee liggéey kenn mënu fee toog liggéey liggéey bi tax nga mën a am somme d'argent man damay naan c'est faux c'est faux ndax nit ku nekk yaa xam la nekk ci yow ak la yàlla def ci yow mais quant ñi naan Assane mënut a am lool pourquoi pas mënu ko am mun na ko am ña fa nekk di di am seeni wërsëg dañoo xëy rek am ko mun na ko am xaw ma ban diiraa la fa nekk te nee na da ko doon jox mu koy dencal donc dama ko doon jox mu may dencal que soit dërëm la wala ñaar dërëm mu koy dajale ba mu yegg som boobu moom newul ne dafa dindi 3 millions 40 man 3 millions 40 ñii ngi naan 3 millions 400 wax buñ koy buñ ko waxee da nga koy déglu attentivement moom 3 millions 40 la wax. te bu nekkee da yàgg jox mu koy dencal ba mu yegg foofu mun na nekk ndax moo ngi liggéey am ambulant la te jaay tey mu neex suba mu naqari semaine bu muy neexee wala weer bu muy neexee mun nga cee am lu nekk nit ñi dañuy dégloo te di xam ne nag lu nekk bu nekkoon yow di nga bëgg ñu la ci te booy wax da wax te yàlla rek tax man asar xaw ma xamaale moom ñoom ñëpp xaw ma mais fautif bi moom ku jigéen ki laa ko teg am nga jëkkër am nga jëkkër sa far la woon danga ko doon nax. di lekk xaalisam nga bàyyi ko doomu aadama da ngay am yërmande ndax buñ ko defoon sa càmmiñ du la neex buñ ko defoon sa doom bu góor du la neex yaay tamit part de responsable ñoo ngi sax ba Assane ñëwee ne sama xaalis laa soxla ñi wax a seen doom waxanteeg jëkkër ji wax ko dëgg bi tey bu ñu ko waxante woon xool la ko Assane doon jox mu xale bu jigéen bi waxtaan ak Assane ci dal ci dal rek ah lii yëpp amaana du ci yegg. mën na nekk tamit yàlla lii la moon ci moom mu nekk donc lu am rek métti na trop deele métti na mais nag lu yàlla teg jàmbe da nga ko war a nangu mais nag parents yi def nañ faute bu mag a mag ba Assane taxawee ne da leen a yoroot seen xaalis te yaayam xam na ne ndax déglu naa ñu ne façon teraanga bu nekki sekk na ko nit yaayam ak xale bi te Assane waxul ne damay yëkkati xaalis bi jox ko ko Assane dafa ne dama ko doon jox mu may dencal donc denc nit ki di la dencal kenn xamoo kañ la ko commencé yéen ñii di wax ñëpp xamoo ne kañ la commencé Assane rek ak xale bu jigéen bi génn àdduna rek mun a wax li am rek te instant yi Assane lu mu wax duñ ko gëm donc pourquoi pas duñu jël téléphone xale bu jigéen bi téléphone Assane contrôler seen message yi ah Sonatel mun nañ def loolu. nañu waxante dëgg waaye yéen naxaante naxaa naxaate la nit ku nekk fa nga nekk mun nga faa dem yàlla ubbi sa wërsëg nit mun na faa def vingt ans te dafa mun a am benn dërëm da di fàtte yàlla merci beaucoup maa ngi jégalu nag leen jaajëfal bu baax a baax def naa Maroc bu ñu nee Maroc Maroc kenn mënu faa nekk am lii sans dépend ca na ko na ngay kiyee nit dem na Maroc def fa six mois yàlla jàppale ko nit dem Maroc def fa tant d'années mënu faa jëlee dërëm yàlla xol rek lay fay doomu aadama xol te asam boo ko déggee muy wax sax xam ne innocent la xamul dara xamul dara naif naif bu mu naif ne ñàkk xam dara moo tax xale bu jigéen bi manipuler ko ba jël xaalisam. salaamaaleykum waa Sénégal 7 ku nekk maa ngi lay nuyu sa tour ak sa santé di jiital nuyoo bi ki nga xam ne moo def li nga xam ni nit ñi dañuy toog fi ñuy toog di wax seen xalaat mais xalaat defe naa dafa war a rafet. ak li mënti dem rek defe naa Marème dem na dañ koy ñaanal yal na suuf oyof ci kawam defe naa Marème bu yoraloon Assane ay milliards Assane warul rey te Assane reyul benn bakkan Assane ñaari bakkan la rey parce que Marème mu nekkoon en état nit ñi tamit dañuy wax lu leen wóor ndax Marème papa am tu nekk kilifa di comploter loo xam ni te wax dëgg fa yàlla mu yor métier bi di ko liggéey ñëpp xam nañu li ci entrepreneur ñëpp xam nañu ci liggéey ci bâtiment defe naa boo nekkee lu nekkul entrepreneur sax nga nekk architecte sax di bi di dessiner ay kër rek loolu nañ la ciy fay xas bu weex tàll Assane nag duma ko duma ko aw ma droit benn doomu aadama ndax yàlla moo am droit juger doomu aadama yi te yaayu Assane na nekk place yaayu ñoom Marème tey bu ñu reyoon doomam du waxee ni mu waxee jabaru magam tamit taxaw di wax te mu ngi naan moom nekkul ci kër gi dafa dégg nu ñu bàyyi baatu dégg naa ki dem nañ ko ñaanal yal na suufu Madina Fall bi oyof ci kawam ñun ñi di ay jigéen ne kees ñoo am métitu xol ak naqar parce que rey bëri na version bu nekk nag yaa ngi ko ci dégg te nit ak booy seede na ngay seede loo xam nit booy wax na ngay wax loo xam ndax bàmmeel dafa xat fii loo wax bu ëllëgee di taxaw waxaat ko Assane rey na rey na gis nga Assane ñooñu jàpp ko nañ ko woon na rey ba mu dee ku rey ni dañ laa wala war a rey Assane mënu fee nekk ci diir bu gàtt mu liggéey fi 3 millions di ko yónnee man duma ne Marème yoreel du ko waaye lu ko Marème mënti yoreel ci àdduna jarul muy jël bakkanu Marème ak Marème doom jëmu ëmboon ñun nag yaay toog di analyser ay analyser ay wax dina nag daf ma metti daf ma metti trop ku nekk yor sa làmmiñ di wax ku nekk yor sa làmmiñ di wax ku nekk xamoo nu wax demee Assane dafa wax Assane dafa wax comprend nga mais yàlla rek moo xam li ci xew ak lu ko Marème mënti yoreel ci àdduna rey moo war a mujj ci àdduna waa kër Marème waa kër Assane taxaw naan Assane wérul wérul baatu wérul boobu nañ ko jël gas ko bu mu xóot deful yëfi dof yëfi nit la def te nit nag dangaa war a jël sa sa sa boo defee li ngay def seen waa kër waruñoo woona a def lu ñëw baalu àq mastawu ndax ki dem dootul ñëwati ba ilaa yow mi diina abadan te yaayam dootul amati doom ju mel ni Mariam dem na yal na mottalee ndawam àllaaxira góor ñi nag ku nekk yor sa làmmiñ di wax jigéen ñi nañuy mbaraan góor ñi dàq mbaraan jigéen ñi nga gis góor jigéen bu am liggéeyam di ko liggéey tabax këram góor ñëw ne du koo bëgg dugg ca kër ga lekk xaalisam daal di daw yenn saay nga génn góor génn moom sept ans huit ans mu ne fi ñuq ni yàq bu naqari dem takk jabaram léegi li jigéen ñi di muñee la moo tax góor ñi mënuñu koo muñ ku dee kenn waru koo baatal ñuy ñaan yàlla yal na suufu Madina Fall bi oyof ci Marème Diagne yàlla may ay famille xolu muñ jigéen ñi wax moom dafa mel ni ñoom jigéen juruñu leen mel ni ñoom duñu ay jigéen ku nekk yor sa làmmiñ di wax xamul leen dëkku leen Thiès dokku leen Marème Diagne xamu leen li xew Thiès xamu leen li waa kër Marème Diagne di dund bàmmeel nag dafa xat looy wax war nga koo xamaat deewu Marème Diagne bi ñun ñi waa Thiès daf ñoo metti ba ci kanamu yàlla defe naa bu ko defoon beneen koñ muy r di jàmm gën kon Assane bu ñëwee police bu ñëwee koor la fay fekk du fa fekk nit bu toog dinaan yóbbu leen ma police ku dof dinaan yóbbu leen ma police waa Madina Fall ñoo matul ñoo ko waroon a sotti essence rey ko ba mu dee ndax li mu def kirim la kirim kenn mënu koo fay. nañ ko na yoon def liggéeyam tëj ko à vie fekkee loolu xaas da ko jaral fi mu toon daa bëggoon a tukki xattam bi loolu la expliqué tukki dab na ko mooy ci kaso bi ba dee ci kaso bi yàq sa àdduna yàq sa vie mu ngi noonu maa ngi jégalu bu baax di baalu ñëpp ak di jégal ñëpp asalaamualeykum waa Sénégal 4 TV asalaamualeykum waa Afrique waa France bitim réew waa Sénégal waa tout le monde de Afrique de tout le Sénégalais Euh, man Mamadou Pène artiste comédien maay wax ni leen euh, Sénégal 4 TV képp koo xam ne bëgg nga message bu bu jàll bu baax wala képp koo xam ne bëgg nga ñu defal la émission boo xam ne émission boo am importance lay doon da ngay gis Assane la xaw ma ak jigéenam boobu. awa ñu ñu laaj la nga wax. Sénégal 4 TV nag euh, ku nekk xam na ni bu ñu nee Sénégal ni 4 TV 4 kay moo ëpp 1 1 2 ba ba nga yegg a te kaat li tax kaat am solo mooy kaat xibla yi kaat xibla yi penku soowu gànnaar bawal muy abdoulaye Sénégal kaat yu yaa am xam-xam. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le Sénégal 4 TV